الله أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم يا من أسر الجميل وستر القبيح ولم يأخذ بجريرته ولم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع مغفرتي يا باسين برحمتي يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مخل العثرات يا مبتدعا بالنعم قبل سقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي نسألك الله تسوي خلقتنا ببلائنا ولا عذابنا السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi ñoo ngi nuyu di leen ziyaara di nuyu bu baax borom dëkk bi xalifa bi alxaaji mu ngi njëgeen di ñaan ci yàlla yàlla yàlla guddal fan rakkam yëpp di nuyu bu baax alaaji yéen a njëgeen bu Umar njëgeen di nuyu bu baax alaaji ahmed njegeen bu cheikh umar bu alaaji ahmad baro di nuyu suñu bàjjen bàjjen yaasin njegeen moo ngi nii ci mbooloo moo ngi nii toog waaw ah, ngi nii toog yàlla yàlla dolli di nuyu suñu bàjjen ami di ba bu alaaji ousmane njegeen bu alaaji ahmad baro nuyu njegeen yàlla yàlla dolli sa wér dañoo xëy suba ñëw ci pénc mi di werante ci xam-xam ci alquran waa ji ne ayatul kursi moo ëpp doole waa ne ko déedéet xul wallaahu ahad moo ëpp doole ñuy werante di werante ba waa ne ko nag léegi jot na bu dee ayatul kursi ëpp doole nga wan ma ko bu dee xul wallaahu ahad moo ëpp doole ma wan la ko waaye bi loolu amee nit yàlla ba jël saaku gileem ba def ci dugub jël saako ba def ci dugub jël ko teg ko ci kaw gileem gi dàq gileem gi mu dem ci àll bi lu tolloog weer nit yàlla xulwalaaw ahad bi moom it jël gileem ñaan ci lim ci kaw ci ñaan xulwalaaw ahad def ko ci saako dugub teg ko ci kaw gileem bi dàq ko ci àll bi ne ko may naa ko weer sama gileem bi dina ñëw ci barke ayatul kursi te dara du ko dal beneen nitu yàlla bi ñaan ci xulolaaw ahad bi dàq dàq gëléem bi mu dugg ci àll baxdaat bi ne moo ngi dem waaye bu desee weer bu heure ba jotee dana ñëw te dara du ko dal ci barke xulolaaw ahad ku ne ñaan li ngay ñaan tufli ci gëléem bi bàyyi ko mu dem ah yàlla mi mën yàlla mi am moo tax dëgg mën naa nekk ñaar dëgg deug man na nek ñaar mais nak bokk ngeen di bokk fi ngeen di waxe wa ndax ki bu wax ci sharia ki wax ci haqiqa yow man nga nek ci sa deug ci sharia ki meuna nek ci mom ci deugum ci haqiqa motax waxtan bala muy neex da nga nan ko lan ngay waxtan mu ne la ci sharia ngeen waxtan fofu mom ñaari deug mëna am ben deug mëna motax ñaari deug mëna am ñaari deug nit mëna deug fenn mu téye fan yi rek daaw TFM benn waay doon na wax ne am na benn naafila boo xam ne benn rakka la rakka kenn du si jóg kenn def dara da ngay ñaan sukk boo pare sëlmal amul kàmbar amul dara am ñu génn di ko diingat ma ne ko déedéet bu leen ko diingat da ngeen ko war a laaj kooku fan lay waxee bu dee ci sharia sharia moom amul fenn wital moom benn julli la mooy lan fatiha xul wallaahu ahad fa la xeeg naa si mais bu dee ci xaqiqa la nag kooku géej gi daa nit mënu cee mu xamul da nga a maanu ndax loo xam am na lu ko xamul nit xam ko te doo ko xam ah kon ñaari dëgg mën naa am ñu jékki nag heure ba jot nit yàlla xul wallaahu ahad ba ne pël gëlëm gi ñëw gëlëm nga ba muy ñëw moo ñu leer. te ba muy dem dañoo ñaaw gémmiñ gi mu ñëw bi mu ñëwee mu gën a am yaram gën a leer comme la daloon diggante alimatu ak mbaamam ba ah coow am bi ñu ñëwee saako ba nañ ko tege woon ca kaw gileem ga yàquwul deful dara rafet mu mel ni daa amoon koo xam ne day xëy suba di ko raxas di ko teg ndànk di dundal gi te boobu dundal kenn ko rek gaa ñi kontaan nag ne ah ndekete yoo xul wallaahu ahad moo gën a aay allahu akbar waaye ñu toog tuuti rek jékki-jékki dégg nag kër bët gi kër bët gi pënd bi wuri ñu ne am na luy ñëw luy xew am na luy ñëw ñu jékki-jékki gileem gaa ngay ñëw gileemu aaytu kursi ga moo ngay kaw pënd baa ngay wuri di ñëw di ñëw ba ñëw ci aaytu kursi ba nit yàlla ba mu sukk ci moom ñu xool ko gëlëm di moo ñu gën a leer set wicc rafet dugub ja ñu tegoon ca kawam saako ba daa xottee ko ndax yéen a ngi dégg li may wax bu baax bu dee xul wallaahu ahad xotteekuwul dara newu ci mais ayatul kursi bi mu ñëwee waa ji ñaan ci nee bi mu ñëwee daa fekk benn côté bi daa xotteeku beneen côté bi xotteeku waaye li gën a garaaw nee li muy xotteeku yëpp. benn pepp dugub manqué wu ci benn pepp dugub manqué wul ci ci ci saaku dugub bi nekk ci moom ci ayatu kursi bi ah gaa yi nag léegi lan nag nañ waxante dëgg nag ah léegi ñaar ñi kan moo mën gars yi na coow li coow li ka xotteeku te dara jugu ci moo mën ko xotteekuwul ñu ne ayatul kursi kon moo ëpp doole moo tax afdalu ayati min alqurani ayatul kursi la kon ayatul kursi moo gën lépp lépp a ngi ci nag lépp lu nit di ut ci kursi mën na ko rawatina nag muslaay muslaay ba ci xam-xam waaw loolu nag la ñuy waxtaane tey jàngoon nañ ni jàngoon nañ la ilaha illa huwa alxayul qayum la taaxudu sinatun wala nawmun lahu ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي بفضل يمر يشفع عنده الى بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جانغون ننكو وسع جانغون ننكو كرسي جانغون ننكو سماوات جانغون ننكو أرض جانغون ننكو لكن لما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فوف لا foofu la ñamoon léegi nag ñam leen tuuti bii dañ koy firi mais romb dem dañ koy firi ayatul kursi bi romb dem bi ñu toog da ci tas ndax tasoon nañ ko dem Ousmane yaa ngi dégg allahu moom yàlla yàlla la de ndax firi naa ko firi ko de yàlla baat bi yaa allah la warof ne ko allah allahu moom yàlla mi nga xamante kenn melul ni boo nee benn da naan ñaar boo nee kenn nag jeex na tàkk mooy yàlla moo tax boo demee ba ne xul wallahu ahad jeexitalu aaya ba dane waat ahad ku fa an ndax kenn la kon kenn ak benn bokkul nit la ñuy bennal waaye yàlla la ñuy kennal alqayumu mooy ki nga xamante ni moo dëgër dëgër boo xamante ni lu am nit di fàggu moo koy am jëm ci moom waaye ñaareel ba feebar du ko dal du yuqat du sonn du tay du bàyyi kooku nag ku sonn di nga noppalu pour nga noppal yi lenn rek ñu mën a def lenn xamoo ni repos bi gën a garaaw ci doomu aadama pour mu am reposer fenn rek la ko amee muy nelaw joueur bu la dàq récupéré sportif bu la dàq récupéré Ousmane mu la gën a nekk en forme bi ñu nekkee Chelsea Essien Essien bi ne woon Lyon dem fa ñu ne moom waa day nawal day nelaw lu tollu six heures de temps kenn du ko yee waaye bu nekkee ci terrain bi comme gaynde parce que noppalu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci nelaw nga ko mën a amee nelaw waaw laa taaxuzu jàpp ko sinnatun gëmmantu léegi nag nelaw daa am ñett daa am déjënt waaw déjënt waaw ñetti ñetti façon nelaw am déjënt daa am moom la wax naay saak ci arab boobu yaa koy defee fii ay nii am na sunnatun muy ñaareel bi déjjant beneen bu ci toppam moom mooy nelaw nelaw nag mooy indi xaram nelaw mooy indi xaram yàlla nag dafa wax ni man gëm nañ tu du ma ko ba nelaw duma ci fekk waaw waaw moo tax sunnatun du ma gëmantuul wala naw moom nelaw du ma nelaw de yow Moussa maag yow yamuñ wax leen ko lu tax mu ne ko la wuñeel na ma maa fi samaawaati juróom-ñaari asamaan yi ñeen ñu ne planète yi ëpp na loolu fi mu ne nii découvrir juróom-ñeenti asamaan juróom-ñeenti asamaan yaakaar naa jàngale woon nañ ko benn bi nag laa fàtte mais jàngale woon yi am waaw am na mercure am na Vénus na terre am na mars am na Jupiter am na Saturne am na ñëpp tiim ah ak Pluton Pluton dégg de kon dafa am solo ngay firi mais nag nga ànd ak jamono pour nit ñi mën a dégg waaw bi ak ci suuf kon nag ndekete yoo suñu borom suufam si kat bee dafa pluriel bii mu masculé ko wala moo waral loolu bii mënoon na koo def pluriel mais defu ko benn la ko def moom suuf kon ça veut nit nit lu mu tiitaru tiitaru lu mu gas gas mënta génn suuf te bu asamaanee mën ngaa dem ci yeneen asamaan naaw mais bu suuf moom boo gasee ndox ngay dajel moo xam mu ne samaawaati wala ardi waa léegi nag eh mbokk yi bàyyi leen xel waajal leen bisa ngi ñëw ci bisi de man rek a fay ne ku ma dimbalewul du am man jël la ana kan ci yéen ana ana yéen nit ñi laay waxal ana kan ci yéen yonent bi ci yow laa njëkke ana kan ci yéen yasfau dana ram ëllëg yawmal qiyaam andahu ci nitam ilaa bi isni yi lu dul ci sama ndigal man yàlla moo tax il faut ñu def ak ajjana nit moomu ko de xam nga am na benn gaa yaa ngi koy way démb rek maa ngi koy wax ci sama conférence naan ku tuddee yonent bi sa yàpp yaram araama nga safara ah loolu daa yomb waa léegi boo ko tuddee dem def la neex nag léegi boo ko tuddee gëmoo yàlla boo ko tuddee toppoo sunna boo ko tuddee ngay julli te julliwu loola mais il faut firi baat gaa ñi dañoo bëgg lu yomb de daa am échelon waaye de muy waxee am na plan A B C D moom nag dee la wax. yow war yaa war a xam ni am na aar bala ngay ne da ngaa tudde bi day fekk nga roy yonent bi day fekk nga gëm yàlla topp bu dee loolu kay ku mu neex kay dafa lu la neex moo tax réew mi koo gis léegi tuddee na doom bëgg lu yomb pour am fu mu làqatoo déedéet bala ngay tuddee sa doom wala safara yaa ngi njëkke mooy d'abord nga nekk jullit ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo paree pare iqaamu salaati bu julli jotee ngay julli parce que koo bëgg da ngay topp bëgg-bëgg yeneen bi bu dee dem bëgg bu julli jotee julli waaye bu julli jotee julliwuloo nga ne moom nga bëgg bëggoo ko intérêt personnel la da ragal safara rek waaye du jàll ci yàlla de ah iqaamu salaati wa itaau zakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayti bu wóor jotee da ngay woor boo tuddee sa doom boo deewee nag ñu ne ah, kon kii la mu doon la kon yow ñëwal nga dugg àjjana waaye wooroo jëlal sa fukki doom maa ko wax ca kaw nga tuddee ko yonent bi julliwuloo wooroo nattoo asaka billahi boo demee yàlla jàpp la duma la te yonent bi moo lay jàpp jox la yàlla ne ko dugaleel ma kii safara ndax seytaane la kon yasfau indahu ila bi iznihi eh kii ma leen di bëgg a wax ya'lamu xam na yàlla moo xam de maa bay na li nekk ci diggante bi ay diim li nekk ci seen kanam xam li nekk ci sa kanam xam li nekk ci sa kanam xam-xam bi xam li nekk ci sa kanam yëpp nga xam ko ba la mën a moytu wa maa tanfahum ak li ci sa ginnaaw xam nga kanam la njëkk kanam moo gën a yomb mais li gën a garaaw mooy ginnaaw nit dina ñëw dina la nettali fii nga jot a jaar fii nga jaar yomb na mais li ne sa kanam ñaata fan nga war a dee nan ngay deewee ak fan ngay deewee kooku yàllaa ko xam de moo tax ci kanam la jiital mujjee li ci ginnaaw parce que mujjee nit mën ngaa xool am ku la nettali histoire ci nit nga ñëw xam ko wa maa xalfahu waaw ah. moo seexkat yëpp li ñu gën a aay li sa ginnaaw li listixaar waaye kanam néew na ñu ci aaj waaw ndax daa am ra yeneen ñu ci rax mooy jinne yi am wax naa leen ni xam-xam am kasfu di gis bokkul ak nitu yàlla doon nitu yàlla mën nga am kasfu te gëmoo yàlla li ngay gis sëriñ bi sax du ko gis léegi nag xam-xam bi jox naa leen de waaye li ma leen jox bariwul yàlla nee na ci alquran wa ma utitu min al ilmi ila qalila lima xam tuuti la len ci jox yeen ñëpp ngeen séddoo ko kon ni ngeen xam bari wu wa kon wala yuhituna manu leena pek sama xam-xam bi ne min ilmi ci sama xam-xam bi bi shay in ci dara dara dara dara yalla lu mu xam lépp kenn xam ko mo tax yeen say yi nga gis borom xam-xam bi bu ñu jàppee tiri yi ah ah imam ashari imam shawqi bu ñu waxee da nga naan ñooñu rek am xam-xam waaye boo liiree yeneen téere yi da nga naan ñii ñooy kan wa wax kat boo waxee da tey kenn dootu wax waaye bu wax kat beneen waxee da nga naan wa la kon kenn peggu ko kenn peggul lépp ku ci ne yàlla daal ñu la jox waaw noppalu illa bi ma sha léegi nag ku mu foofu hidaaya la foofu yàlla moo lay soob yàlla fii la ñuy waxee fii la alaaj mu njëgën daan waxee ne yàlla ku mu nar taf ku mu nar ta fay du la liggéey loolu wala de yàlla ku mu nar ta fay du la liggéey loolu fi mu ne nii ñëw kii ngeen ñëw nii yàlla amul lu mu bëgg ci yéen pour defal leen ko ëllëg yemal xiyaar tey fii ngeen toog nii am na ñoo xamante ne ñoo ngi seen néeg bëgg nañoo ñëw mais mënuñoo ñëw illa bi macha waaw waaw il a bi macha il a bi macha foofu it nag am na positif mais am na négatif xale yi léegi xale yi bëgg ñoo def di tux yàmba loolu mën na ne bëgg maa màndi te foo fekk sàngara naan ko bëgg naa jub te am na lu jub léegi xale yi loolu bëgg fi ne nii koo ci gis daal bëgg xaalis te nangu la liggéey. genn wàll gi yëpp ay dóorkat lañ fi ne nii réew mi ñii liggéey sax ñoo amul ñi dul wax dëgg tey dóor wala dóorkat yi ñoo ëpp xaalis ñuy liggéey di ñàkk léegi nag ni ñuy def da mujjee dóor da mujjee dóor da mujjee dóor ndax boo dóorul doo ci génn waaw ah, ah. fii fii ngay gis ci borom xam-xam taxaw di défendre loo xamante ni Safaan dafa am daal fii am na loxo xam ne gaa ñaa ngi ci réew mi mais la ñuy xulóo ka muy wax la muy wax pourtant bu dee ci charia dëgg la dëgg la am na ñu taxaw di ko défendre te wóor na ñu la ñuy défendre xam na ni kooku li mu wax dëgg la mais nanguwuñu ko lan nga ci mën alxuraan ay wax de waaw bi macha kon ko xam yàlla la xamal. ku baax yàlla la baaxal sante ko yàlla ndax li mu xam li mu am rëy na mu ne waaw waaw wasia ëpp na xam nga wasia mooy lu yaatu mais yàlla ki nga xam ne mënoo koo limité bëgg a def chiffre te xamuloo ko danga naan wasia ëpp na moom yàlla kursiyu seize kursiyum ba ñu ne waaw mais lan la ëpp mu ne samaawaati asamaan juróom-ñaari ngeen di dégg gaa ñi di dégg planète yëpp yàlla fa muy toog toogaayam bu ndaw ba bokkul ak lalam de na leer bokkul ak këram de bokkul ak fi muy noppaloo de nee na siis ba doon wasi'a kursiyu samaawaati wal ard nee na moo gën a yaatu asamaan rawatina suuf. waaye ñu ne nag léegi nag leeral ñu leeral ñu nag nan la toll am nu mu mel mu ne suuf ak asamaan boo ko boolee moo ngi mel ni baraada baraada kubéeru baraada nga sànni ko ci asamaan wala nga sànni ko ci suuf ni muy réeree ba doo ko gis mu ne suuf ak asamaan boole boole woon ak yàlla kursi yu toll ko nen ah yàlla ponkal la de ay waay boobu kilifa googu fu ñu jëm ak moom kenn du moom li muy gis ak li muy dégg waaw imaam doon naa waxtaan moom naan ko de am na am na yenn ci doomu aadama yi ku leen xool maanaam da ngay réew bëgg da daan yàlla bind na leen waaye dana toog ba si àgg ne sama jaam bi maa ko bind waaye kenn du moom yenn saa yi gis nit dëgër fit na man maa xubbi sama yenn saa yi gis nit dëgër fit ne ci boppam man yàlla may na ma damay gis ca kaw damay gis ci suuf te li muy wax lépp yow xam nga ni li mu wax du dëgg kon wasi'a ëpp na waay kursi moom kursi yu wala yauduhu bu dee ci saraa bi lay firi saqiin laa bi saqiin maanaam diisul mais bii boo koy firi doo ko firee diisul déedéet bii da koy abal ñaari fii da naan xolo diisu ko tiisu ko waaw tiis xam nga tiis ci xol lay ne diis ci yenu lay ne waaw tiisu ko diisu ko jàppal ñaari baat yi tiisu ko diisu ko xam nga lu tax parce que baat bu ne daa am fu muy dellu léegi nan nga ko defee masal imam asbaro day def conférence am mu ñëw gisee président de la république président ñëwal boppam ñëw mu gis ak yow mu yëkkati cinq cent millions cinquante millions jox la ngay dem mu jël otoom dugal la ci ne la chauffeur chauffeur yóbbu ko ba mu egg këram bokkul ak imam as xam ne daa defar programme jël enveloppe yóbbu ko ministère ministère jàllale ko présidence ñu woo la ne la imam as ñëwal Dakar booy ñëw indaaleel sareet wala camion ñu defal la ci saaku ceeb nga indil ko sa bopp yaay fay camion ba ñun saaku ceeb bi rek lañ jox ñaar yooyu bokkuñ de ah duñ benn léegi nag bi ma la njëkk a wax mooy président bi te mu ñëw boobu la ñuy wax ne tiisu ko diisu ko bu fekkante ne da dem yaa ngi dégg moom ci boppam da nga naan da nga naan tiis na ko waaye nag diisu ko parce que lu mu néew néew ceeb ba moom moo koy mujjee moom waaw day am leer na wala leer nga ñëw ci saal bi ñu ne la jëlal saako ceeb yaa ko moom ñu defal la ko dem ba ci sa kër tegal la ko fa du benn yàlla nag noonu la mel yàlla moom xoolal ñaar yëpp moo xam dañ koy indi saaku ceeb bi intéressé wu ko moo xam day jëli saaku ceeb bi intéressé wu ko ñaari yooyu yëpp nekkul ci moom dara moo tax xoolal diisu ko ba yenu ko tiisu ko ba sonn ca ñu dog ko koo jox léegi nag lan la tiisu ko diisu ko xam nga ci yoon naxu bi xifsa la waroon a bi nee huma rek daam ci lu muy delluwaat aha tasniye la tasniye la day dellu si waat mooy je il sans s elle sans il avec s elle avec s conséquence waaw ah, noonu la foofu mu leer xifs wattu ko ñan la mu ne huma suuf ak asamaan waaw moom yàlla kon mooy wattu loolu diisu ko kon xam nañ li ci nekk lépp kon mooy kan mu ne woo woo moom yàlla ah, kon kii warul nekk ku ndaw al aliyu mooy ki nga xamante ni nag moo kawe ca kaw a kaw al azimu mooy ki nga xamante ni a màgg léegi nag gis na al ali ak azim ci ñaari tur yi ma lay bëgg a wax al ali mooy dellusiwaat ci mooy delluwaat ci suuf imam yaa ngi dégg baax moo mooy dellusiwaat ci moom moo tax al aliyu mooy ki kawe ba kawe asamaan. al azimu waaw kay al azimu moo gën a ngand moo gën a rëy suuf noonu nga koy firee parce que ñaari alim bi day dellu samawaati azim bi day delluwaat ci al ardi kon mooy vertical et horizontal verticalement et horizontalement oui minutieusement waaw eh, français yi baax na ci imam yàlla yàlla fay la kon il faut toujours euh, pas oublier le, le, le Dieu le tout puissant waaw léegi nag imam ñoo ngi dugg ci fiq bu doy waar lii ñuy waxtaanee fii coow da cee bari ñaari aaya yi il faut ñu leeral ko parce que réew maa ngi bëgg a toj réew maa ngi bëgg a toj ñu dem ma wax aay bi ngeen dégg laa ikraa fi diini boo koy firi foog nga indiwaat beneen aaya ba muy ban lakum diinukum waliya diini parce que benn baatu diini bi daa dikk ñetti yoon day ñaari yoon ñëw ko bii mu ñëw mais yàlla nee laa ay waay ji ay waay bu ko def de ikraana bul forcer fi diine ci diine kon di nit waruñu koo forcer ci diineem nit waruñu koo forcer ci diineem léegi nag dégg-dégg bi ndax loolu la du loolu daa am aqida am axlaax wal aadaab daa am boo xamante ne aqida la ngëm ngëmu yàlla boo gëmee yàlla gëm yenent bi kon yow laa ikra fi diin mooy lan saa yi da nga gis ko xam ne daa toog war a julli ee eh, jullil nga ne ma non laa ikra fi bu ma forcé dama nga julli sa julli bopp mais du loolu ibaadaat dañ la ciy forcé ibaadaat dañ la ciy forcé bu dee axlaax la yan ñoom bokku leen bokku leen religion kon yow ci jikko par force dang koy forcer waye ci aqida do ko forcer wa chrétien bu ñëwé da jël ndox mi diko ko tuur bu dé ci jikko ju rafet war nga ko wax ne ko fi waroo ko fee tuur waaye bu fekkenta ni nak jaamu yalla la may mbeng bu onu julli jotté fa jóob da la wara yé yee ne la julil waro naan ko la ikrafu din waroo maa yee déedéet dalaa war a yee par force moo tax xale yi maa ngi dégg ñu naan boo jàngee muqaddima ñu ne kuy nelaw dafa bokk ci ngant yi déedéet nelaw rek am ngant déedéet bu dee amoo ku la yee nga nelaw te kenn yëgu la mais boo tëdd kenn bu óolu jëlu jotee dalaa war a yee ngi julli moo tax boo ñëw ci alaaj Muhammad Ndieguene bu la mayee soxna danaan la heure boo laalee ndox lu mu la wax laalal ko ndox heure booy julli yee ko nga julli loolu la ngant ki nga xamante ni ngant la ci nelaw mooy ki nga xamante ni kenn yeewu ko déggul dara waaye waxuma ki nga xamante ni comme ni Ousmane di def asalaatu xayru mina nawm mi rek seddaay bi jàpp ko mu jëlaat mbàgg mu sànq ñoo ko mu ne dama doon nelaw dama amee ngant amoo ngant amoo ngant amoo ngant kon la ikra fi diin imam il faut mu leer nit dañ lay forcer fi mu ne nii charia boo demee ci benn téere buñ naan misbaax bu heure julli jotee yow Muhammad heure julli jot julliwuloo dañuy ñëw ne la waaye tax julliwuloo ne non man ma man daal maa sentir ñu ne la ah, ngi lay xaar jullit nga wala doo jullit nga ne waaw waaw jullit laa ñu ne la jullil nga ne julliwuma gaa yi demaat ne saa waay boo julli nga julli woo gaa yi ub jaas daas dañ lay tëral reen gi xatiit réew mi nag xam naa ni hmm, xaaral ma noppi xam naa ni euh, dañoo waroon a génne benn machine wala usine boo xam ne te usine boobu sax day tëj ndax day paan daa nar a waaw day paan day eh, paar ndax rey yu bari dégg nga imaam kon laa kara fi diin bu julli jotee moo tax sa doom dañ bu amee juróom-benn at commencé booy julli te ko solo bu amee fukki at bu julliwul utal yar bant bële di ko dóor mais forcé ba forcé ba tey jii am na ñoo xamante ni mënuñoo saxiir am na ñoo xam ne mënuñoo woor bu koor jotee bu 14 jours jotee dañuy mel ni ku màndi ndax bi ñu nekkee xale dañ daan bàyyi ba koor 14 jours mu dugg ci kër jàmbur dem di fa lekk ah mënuñu woor am ñoo xam ne ñàkk a woor wàññiwu leen dara baaxul fii ba suba mën nañoo woor leen wàññi dara waaw man am naa koo xamante ne mën naa toog ñaari fan du lekk te du ko wàññi dara ñaar ñaari fan. ku ma xam wallahi ñaari fan du lekk du def dara wàññiwu ko dara parce que daa yàggal woon ba mu nekk ci moom mais loo doonul taalibe doo doon sëriñam maxu waaw kon laa ikraa bu fekkente ni julli la dañ lay forcé yee la dañ laa war a yeew bu heure julli jotee kër gi yëpp ñëpp a war a yeew sa sa góor gi sëriñ Moussa Ndiaye noonu la daan def jël ñettam ba julli kam julli heure ma tëdd ci la waaw par par de fois nii moom sonal nañu waay moom bu julli na dem julli julli boppam mais boo jàngee téere yi ci nga doog a xam ni moom daa am lu yomb lu mu la doon defal moo tax ba ci la ikra fi diin bokk na ci jàkka ji bàyyi Ablaye Samb nodd ci muy nodd am na ñu muy dimbali waaw am na ñu muy orienté am na ñu muy dimbali waaw la ikra waaw la ikra dëgg de léegi nag waaye lu tax du ñu forcé ci diine ñi nga xamante ni gëmuñu war a tegu ci njub ñu ne ah xat ci dëgg-dëgg te na leer na naññ nag diine lislaam bii lii yàlla indi teg ci yonent bi ah leer na nag arus de njub gi njub gi leer na de neexu wax nag neexu wax de ah Serigne Touba bind na ci téere bi naan axiru zaman ne gaa yi ñi bokk ci man bu julli jotee julli leen léegi lan nga ci man xat tabay na rusta leer na ci Serigne Touba ci keneen ku mu leerul moom wàccoon na xat tabay na rusta maam Alaaji Maalik tabax na jumaa tabax jàkka noonu ngay def noonu nga koy firi ci jamono xat tabay na rusta Alaaji Ahmad Bara defar na lii fii ku julliwul nag moom jaanam wàcc na bu jàkka ji feesul nag dëgg-dëgg yàlla kër gi la nag waaye du woor ah wàcc na nag waaw Serigne Touba wàccati na maa ko wax ndax ñëpp dégg nañ ci histoire bu leer a leer ne bi mu jugee fii ba gisee ak suñu maam El Hadj Ahmad Boro biñ paree Touba bi dañ koo yóbbu màgget Touba bi dañ koo yóbbu mais biñ ko yóbboo mu ko bu heure julli jotee boo julli suñu gaar dañ ñu tool te dégg naa seen yàlla ji daal heure boo leen di julli te heure ba jot na yaa ngi noonu nag géej gaa ngi noonu jullit waaw mu Sëriñ Tuubaa def pourtant mënoon naa ut ngant de waaw tubaab day saay-saay waaye daa sànni der ba sëgg sëgg julli kon lan lay jàngal taalibe yi mooy ku julli jotee lu mu la jaral bu heure ba jotee na jaral sa bakkan mi na nga julli loolu loolu mooy mbir mi réew mi nag daa naqaree wax waaye nag alxuraan la ñuy wax wax ma kenn alxuraan laa wax bu ma kenn yóbbu nag na leer na dégg de kon mbiri sëñ Tuuba leer na ku koy laam-laame da ngaa xamul ndax bind na mbiri alaaja man bala leer na mbiri maam Seydi Malik leer na man ñëpp kenn ku ci ne bind nga jëf nga bàyyi nga fi jàkka bàyyi nga fi jumaa doo ko def xanaa leer na kon nañ kon nag xat ci deug deug baye na leer na amus mus na jub ga nañ kon nàññi lañ koy firi jërëjëf njëkkat minal xay yi ci mbew muy ci neen xam nga nit ñi nañ waxante deug coolee bari rek mais kat yi jaratul ñuy wax billahi li ñi am nañu xel xam na li ñu bëgg waye ñom ñoo top seen bakel ñoo bew ñoo lu ci ëpp nag laa la wax imam dañoo bew dañoo beew parce que xam nañ ni ñu nekkee mais ñoo tëgg seen tànk rëy laa nañ nag bu ñu waxee mel ni ku la yey réew mi neexu la waxee mais am na yu bari yoo xamante ni fi mu nii réew mi waroon na cee wax yu bari yoo xam ne war nañ cee dut baaraam ci sariya bu ñu ko waxoon soo moytuwul dëkk bi tàkk da ngay mujj a noppi da mujj a noppi da ngay mujj a noppi am na fi de da koy ragal a wax sax ndax boo ko waxee réew mi tàkk te am na yoo xam ne l'islam nanguwu ko sharia nangu am na yoo xam ne l'islam nee na boo ko defee dañ laa war a rey mais nit nit taxaw na fi woote fi ne moom riñaan na te sharia nee na boo riñaanee yow bu ñu ñëwee danaan la tuubal boo tuubal dañ war a rendi murtad nga dangaa génn ci diine rendi la nga war a def amu fii ah, ah? tuubaloo la ñetti fan boo mooy ñu rey la fii nag am na ku fi wax ne riñaani naa am na ko xam ne ne bis bu ne man guddi gi la may riñaane bis bu ne fekk waroon nañ koo rey bu yàgg am na yeneen yoo xam ne man ñi ma woo ma woo ma koo wax bu ma ko waxee moom xam naa ne suba ñu fekk ma fi maag imam as waaw minal xay waaw kon ma wax li ma xam rek kon minal xay ci ndawte li ci des xale koy morta bi léegi nag mu ñëw ci ñoom gis nga wax naa la yàlla fu mu tàngalee bu paré day may tangal waye fu mu neexale yeen say day delu ci wat tangala parce que climat yi ñoo bokku dara ban la l'alizé l'armata et la et la musso merci li primaire nga koy jangé primaire nga koy jangé et la musso yeen say yalla tangal waye legi men fo mu tangal parce que ginaaw won na gi rek dina wax ni ñi amna lu la tax wa wa yow yalla waa sa njub gi ndax am na ñoo xamante ne ko mu ne waaw fa man yakfur ay ku weddi baax na ay ku weddi ba bis ba te nag weddi gi yëpp nag xam naa lu tax ngeen def ko bi taaxuuti ci mbewte topp seytaane topp lu leen neex topp lu leen neex xam nañ ko de waaw xam ko naa koo wax waaye mënu ma koo wax imaam xam nañu ko xam nañu ñoom newuñ ci xam nañ ko amuñu lay waaw waaye nag wax ñi nga xamanteni ni yu'minu gëm nañ billahi ci yàlla ñooñu kat waaw lu xew faqat ci dëgg-dëgg istam shaka xolal istam shaka mo ngi bayiko ci batu masaka masaka moy japp wala budul jàpp daa am benen bu da nga naan téye waaw te am na beneen baat bi gën dëgër mooy moy xam nga tàppet nga nar a daanu ñu da ngay daanu de nga ne ci naan ca kaw garab bokkul ak téye téye loxo koy def téye loxo koy def léegi moo tax boo koy firi da nga naan xoolal wa yu'minu yow mi gëm billaahi ci yàlla te bokkaale woo yàlla faqat ci dëgg-dëgg istamsaka moy nga ci moyal de. léegi nag nga posé ma question lu tax nga ne ma noyal lu tax yàlla wax ko ne noyal mun ko parce que daa am ku nekk sa muy seytaane bu la fekkee nga jàpp boo mayu dalee dip moo tax foog nga jàpp bu baax allah faqad istamsaka waaye nag boo mayee ci góomu yàlla bi bu urwatin mooy góom bi nga xamante ni al wusqa dafa dëgër de mooy bu dëgër këcc nañ nga waxoon man maa la ci dolil këcc imam as waaw dëgër këcc mu ne waaw daa dëgër këcc waaw lu dëgër këcc nu mel nal mu ne lan fi saama xolo lan fi saama xam nga buum daa am ñaar bu dee da ngay root ci teen bi bu yàggee nga koy root ci teen bi ci suuf te defoo ci baat buum bi day fëriñciku bu yàggee day dagg pind bi ba pare buum bi di dakk ñoom ñaar dina am ku ci njëkk dakk te mooy buum bi mooy njëkk a dakk yàlla nag di la wax man ku jàpp ci man bu dee buum la buum la boo xamante xalaatoo sax mu firiñ ci ku bay dakk kon jàppal rek yaa ma jaaxal waaye buum bi jaaxal ma waaw lam fi saama laha walaaw yàlla samiun aji dégg la ci lu lépp lu mën a wax ba ci biir xol alimun yàlla moo xam lu kenn xamul kon ku yóbbu jàppal léegi nag mu mel ni ayatu kursi bi daa am conclusion ah waxoon naa la une relation est composée en trois parties l'introduction le développement et la conclusion léegi nag ayatu kursi moom it daa am conclusion mais ni ma ubbee moom noonu la tëjee lan la waxoon allahu laa ilaha illa huwal hayyul qayyum xool la déglu leen allahu yàlla moom mi la wax nga xam ne ku ko jàpp moo xam mooy ki am xam-xam mooy ñu péeg lépp moom tamit diisu ko tiisu ko kii ma lay bëgg a wax alwaliyu mooy meññ fii nag la ñuy jëlee ne ndakate ndake nit yàlla am na alxuraan am na fu mu waxee yàlla moo tax barki démb bi may def conférence waa ji ne ma fan la yàlla tudd nitu yàlla ci alxuraan fan la tuddee wax ma ko dégg nga de alxuraan nag laa bëgg nga wax ma ko fan la ko tuddee ma ne ko allahu wali amanu xanaa leer na ma ne ko doyul de waa ji ma ah, mais ñaar nga wax bokkul ma ne ko waxtaxu nga sàkku ilayhi baatu ilayhi imam alif un alif un la cortèlement laam 30 la muy ñaata muy 31 yaa ñaata la 10 31 plus 10 Ousmane ñëw 31 plus 10 ah 41 ni laa 41 lii mooy lan Ousmane looy def nii koor la jàpp 41 plus 5 égal ñaata 46 léegi ñu dellu surat allah waliyul lazina amanu waliyu waa gi ñaata la 6 laam gi ñaata la 30 plus 6 égal yaa gi ñaata la 10 36 plus 10 égal 46 ili kon waliyu mënul ñàkk ci doomu aadama parce que yàlla ni mu bindoo ak ni mu mel moom yàlla mel ni moom kooku mënoo koo gis mënoo koo jot xamuloo ko xamoo couleuram xamoo foo koy fekk mais kon foofu moo indi kenn président de la république mënoo koo gis mais boo gisee gouverneur gis ko ah lettre boo bëgg a jàll ko ci di nga ko jot parce que yàlla mo wute kenen yajibu lillahi wujudu wal qadar kazal baqa wal inam mutlaq am wa kul fu li khalqihi bila misal wa wahdatu wa wasmu wa fi'al wa qudratu irada bi ilmu haya sam'un al bashar zi wajiba kon ken du yàlla way fu mu indi ken motax nit nitay mu nit nitay way nitay garabam ba nit nitay posamam wa wa moy avion kon allahu yàlla wala yi mooy may nit ñi nga xamante ne allazina mooy gaa yi nga xamante ne amanu gëm nañu ko te gisuñu ko ñooñu nañ ci nekk de imaam fii dinaa la ko firil tafsir quran bi maanaam nit nan lay nekkee ak ban aaya nga ko def mu ne yuxrijunahum mu génn leen mu génn leen xoolal yuxrijunahum ak yuxrijuhum bokk xoolal ma anam ana téere téere xalifa bi alaaji muniru jëgéen mu ngi nii jëgéen c'est anormal dangaa war a xam ki war a xam moo war a dimbalaate mais ki xamul bu la ñëwee da lay gën a réeral waaw ko wax ci wolof waaw ran boo xamante ni gumbaa ko jiite la topp ca ginnaaw fu ñu jëm ah <laughs> rang boo xamante ni gumbaa ko jiite la fañ topp ca ginnaaw kooku ndax dinañ egg fu jëm du ñu egg parce que xama ko jiitu yuxrijuhum dina leen génne mina nuuri ci lëndëm kon yaa ko fay fekk fekk dafa amee bàkkaar nga génn ko ila nuuri jëme ko ci leer foofu benn aay nga ko mooy lan kam min fi atin xalabat fi'atan kasiratan bis ne wallahu ma sabirin amul kenn koo gis ci diine muy commencé lenn mbooloo mi di bari déedéet benn nit ñaari nit imam premier ada bi fii du maag yow rek la yow ah maag moom donc ak yow am na boo xam ne sax imam ñëwul man moom rek la woon ñu dem ba ci biir man maxtaar ñu ñëw muhammad mi am na xam mom am na xam sax dem sax ñew mo fi sax <laughs> xanaa day neex yàlla yàlla yàlla bokk ci daal kon nag da génne kon képp koo gis muy jullit mu door benn mbir bëgg mu sotti foog mu demee ndànk foog mu demee ndànk lépp loo gis mu commencé ñëpp daw nii coolee mujj rek waaye nii lay mujjee du yàgg moo tax tubaab bi di wax ni petit à petit l'oiseau fait son

ni nitu yàlla di amee ci lu baax noonu la amee nitu yàlla ah, <laughs> xam nga loolu nitu yàlla seytaane am na loo wax mu wax ko léegi jamono ji ñu toll nii nitu yàlla seytaane xam nga ñoo la dàq jàng alxuraan maa la wax lii nga dégg ñoo la gën a rëy làmmiñ ëpp la xam-xam gën laa dàq jàng gën laa neexub xel boo toogee ñoom yee la waaye boo ànd ak yàlla bu yàggee ci boppam nga yey ko ndax lu yàgg rek du dëkk waaw waaw awliyaahum ay wëyu la ñuy am awliyaahum waaw moo tax wàllu bi da koy dindi xoolal wàllu bi da nga koy dindi da ngay dindi laam bi waaw wàllu boo dindee laam bi lu ci des wëyu waaw ñooñu ñëpp kafaru awliyaahum ay wëyu lañu taaxuutu boo xamante ni dañoo bew nekk ci lu leen neex waa sëriñ boo xamante ñeenti jabar mais sëriñ bi nañ waxante dëgg nag yow doo sëriñ wëyu nga te alxuraan a ko wax ne yóbbu moo kenn yóbbu <laughs> ah ñeent rek ñeent waaye nga juróom juróom benn fi mu ne am na ñoo xam ne ñoo ngi préparé pour 40 jabar bàyyi nga leen wallahi seetaan naa ko barki démb tele ci internet bi 40 jabar noo koy leer kooku fan la jëm ka kaat la ñu wax moom mu jël benn sere bi dolli ca 40 kooku ba kanam la topp nag ba kanam la topp moom man daal gars yi xaw fu ñu jëm rek man xaw lu ñu bëgg yonent bi nee jigéen jigéen ñeenti façon jigéen am ñeent. ñeenti façon jigéen am ñeent ñeent ñu ne ko waaw wuute bi fan la amee mu ne déedéet ci jëmm la amee ci jëmm waaye du ci biir de bu dee biir la moom boo demee ci moxtaaru xadis nee nañ yëpp a yem yëpp a yem iPhone iPhone la rek moo xam 14 ak 21 léegi nag ci 21 yi ci la giga yi ëppante mais iPhone la ah, ah. ah nga woote di wuyu waaw lan nga ci ti nag ah fi mu ne da ngaa portable bi ci boppam toog fee portable bi ñëw wuyal la composé la mais mais nit ñi li mu bëgg nag ah dégg nga taaxuute ñooñu nag imaam yuxrijuunahum xoola yuxrijuuhum moo amoon fële bi yuxrijuunahum dem leen fële ndax man aw ma lu bon man nekkuma ci lëndëm ci leer laa ne man yàlla kon dem leen la yuxrijuuna ñoom ñeeñee minan nuuri xolobee ilan nuuri la ko mais minan nuuri bi ca kaw la nii ci biir bi waaw parce que da ngay a xóot gis nga daa am ñoo xam ne day mel yàlla da leen a jay caaxaan bi lu ñu dugg mu dox nga ne waa mais kii lan la lu xew man mi nga xam xoolal rek fane fanweeri tafsi abdourahmane gay avant muy dem bitim rew da ñew do ñaan visa pour dem bi ñu ñew ci bi ñu ñew ci ambassade bi bu tasefaat ousin ousin moy ki way bërëng bërëng bërëng bëri ko mu and ak paulis dama wax ne lu garaw de mu ñew ñu ñu daggal ko visa ousin ñu daggal ko nako ko daggal paulis nako tamsir yow fu ñu ni mëna go dem xoolal lu mel noonu xoolal lu mel noonu fu ñu koy réglé fu ñu koy réglé ah kenn xamul foo koy réglé te lii moo am ci réew ki nekk ci mbaax di dimbali mbaax wala dimbali doomu aadama yi ak nit ñi du ñu ko wax dara dañuy jël caaxaankat bi di leen déglu fi mu ne nii télé bi du ñu déglu képp koy wax lu baax xoolal def naa six ans prestige mi baax xam nga ne musuma am mille six ans bis bu ne may wax aw ma mille vues aimé musuma am cinquante aimé man aimé commentaire musuma am vingt man ku naan kunkande dégg lu mu la wax kunkande ne leen damaa war a ci tam xarit ci une heure am un million vues un million mais Ousmane ah man te maa dem ci kunkande la mu def ma def ko wax ko te wóor na ni kunkande li muy wax xam nañ ñu dëgg ñoom xam nañ dëgg ba ko ci ne ndaa mujj ba télé bu mu dem deux cent mille nga koy jox pour nga invité ko mu <laughs> da may bàyyi rek ma dem kunkande te ñëw ndax réew mi léegi ku kunkandewul doo dem waaw ku dof dof yu rëcc musiciens yi ñooy rëcc tàggkatu yeneen yi fi mu nii pour ñu dem si tout un tey jii gars yi boo gisee musiciens yi oto yi rafet yi ñoo koy rek ñooy gis ak yi ñooy dem voyage Dubaï fu ne ñu takk yeneen bi boo demee pour ñaan visa wax ma la waaye passeport di nga ci daj lu ne pour am waaye loolu lépp nag yuxu junoon mi ne mi ne nuuri ila zulumaat dañoo génn ci leer di dugg ci lënd waaw yàlla ci yàlla mu monsieur moo tax baaxul ci dëkk day tax dëkk ba day dellu ginnaaw baaxul ci kër moom la ñuy wax faral di wax kër goo xamante ni xam-xama ko lal alxuraan a ko lal waaw nga bàyyi fi ñooñu dem koo xamante ni xoolal jàngul xam-xam moom daal xamul daal leen daal la am mooy lan xaalisam daal la yore ñu jël ko jiital ko ci lépp bu waxee ñu ne moom la ndax moo am xam-xam léegi dem na sax ba yow am xam-xam yaay nit yàlla bi fi mu ne nii boo amee xam-xam am leer di gis lu ne yow nit sa nit yàlla du feeñ foog nga boole ci xaalis fu ñu jëm moo tax xale yi dem leen uti xaalis de uti leen xaalis uti leen xaalis bu dul loolu kenn du leen déglu kenn du leen déglu waaw waaw <laughs> wa aatal maala ala xubbi zayil qurba <laughs> kon jàng leen boole ci xaalis ulaayika gaañooñee te maa weddi dañ maa weddi de ñooñee asxaabu naari kan la ah. Ah, ah nee na daa am koo xam ne dafay joxe xaalis moo ngi nii xam nga lii du kii bu ndaw dafa ndànk bàjjen seera ma ngi daw de koor gee mu ne daa bëgg ñu ñaanal ko yàlla yaa ngi dégg benn bi maa ko moom ah waaw wax ji daa métti beneen bi yéen ñii seetaan nee na yéen ko moom muy góor ñi ak jigéen ñi léegi nag ñëpp mënuñu ko séddoo benn benn benn nen moom dañ koy baxal rek kenn lekk ko ñu ci des doyloo ñëpp yaa ngi dégg waaw kon nag teel ma nii waaw doo omelette omelette baaxul dañoo ne ci koor kenn du ko omelette waaw xanaa ñu jox ko waa prestige waaw dumbiyaa wala mbaaw ba da imam asxaabu naari ñooñu waa safara lañ waa safara fu ñu bu ñu duggee ndax dañuy mu ne déedéet yéen xaaliduuna dañ fay sax ku dugg dootoo génn moog dee ñoo ku dee dootoo dekki pare nga ca xanaa nañu atte jàmm moom ñoom fiihaa fa la ñuy sax xaaliduuna fa la sax bu ñu génnaat léegi nag mbokk yi ah génn nañu foofu nag yàlla ci yàlla musal kon nag mbokk yi kenn ku nekk ci ñun na bàyyi xel yàlla xam ne yàllaa fi ne leer gi koo dégg ñu naan leer yàlla la 22 la waaw ah, léegi nag ñu dugg ci yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Ibrahim yonent bu nekk jamono ju ne da ngay tombeeg benn buur moom nag moo ngi tombaloon ku naan nam rouge nam rouge nam yàlla da ko mayoon xel mu nekkoon borom buur mayoon koy tactique ak technique mais mënul woon a wax mënul woon a tontu Ibrahim xam loolu nam rouge xëy suba ñu bay benn année mu bay bay gi lépp mu denc ko beneen année ba gaa ñu def dëkk bi yëpp ndóol am la sécheresse du sécheresse lañ koy wax ah wala désert sécheresse la léegi nag ñu nekk ci sécheresse kenn amul lu ñu lekk Namrouz toog ci penc mi ne képp koo xamante ne bëgg nga sama lii may joxe ci xaalis ceeb ak diwlin ku bëgg jëlal waaye dañ jëm da nga naan kat man maay sa lépp maay sa yàlla gaañi ram di ñëw ku ñëw ne ah Namrouz yaay yàlla yaa fi ne yaa ngi kii yaa ngi xolo yaa ko yor yaa ngi waaw moom la ñu jox la nga dem keneen ku ñëw Ibrahima topp ca yoon wa ndax daa amoon njaboot moo tax bari na kuy def loo xamante ni njaboot a tax nga koy def waaye bu doon doo ko def bari na jigéen yu nekk ci sëy tooguñu fa ngir ñoom de seeni doom a tax njaboot gaa tax nit bàyyi na ci jigéen njaboot gaa tax nit bàyyi na la ci kër njaboot gaa tax loolu nag dal Ibrahima Ibrahima ram di ram di ram di ram di ram di ram ba egg ci ci nam Namruus na ko waaye lay xaar dégg xale bu sopp nga ndax moom daa màgg rek indi problème moom ndaw la rek daa ñëw rek waaw comme bay siise rek daa ñëw rek Pambay ñëw rek lépp xusnulaahi la ñuy waxtaane wa buxtu nasaraan isnaaroo xaamidat bu leen fàtte ni nag bi yàlla defee na nguuru buxtu nasaraan jeex yàlla def buur dee nasara buxtu nasara dee léegi nag Ousseynou génn jënd maam yéeg ci yore rasin leen de yore ñam jënd lu mu lekk fii lu mu lekk indaale ndoxam gàddu ko yëg ci kaw mbaamam bu mu yëgee ci kaw mbaamam nag ba pare daa yëg ci kaw mbaamam bu mbaam bi nag di dem di ñibbi di ñibbi ba romb benn dëkk bu ñu naan baytul maqdis subhaanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi al aqsa imam mu ne waa ah waa dëkk bii ndeke nii la mel dëkk bii nii la mel dëkk bii moom ah dëkk boo xam ni désert la fii ak nit ñi fi dëkkoon ak ni ko daan déggee fii daal yàlla sax yàlla déglu leen de yàlla sax mënu ci dara kii mënatu koo dekkal waxuma la ak loolu mais yàlla sax suuf si bu ñu bëggaatoon mënuñ ci dara mënatu koo dekkal waaw ah. ah, laal na laalaakee de laal na ku mu war ta laal de ah fii de noppi fa rek mu ñëw ah ñu ne bi loolu amee nag yàlla na xaar leen tey ma wan dara tey ma wan sama bopp moo tax yenn saa yi yàlla wane boppam de yenn saa yàlla wane boppam de yenn saa yàlla wane boppam de mu ne Uzayru xam nga lu may def yónni malaakal moo na ko damaa bëgg nga reel ma Uzayru doonte deewam ca topp parce que am lu ma ko war a jàngal kon xamul yàlla xamul man sama kàttan waaye tey laa koy wan léegi ñu dem ci film bi leer na wala leer na eh! أو كالذي مر على قرية وهو حاوية على عروسها دنجة إمام وقت الله أو كالذي واو جام بنا قنام تني دا يكي مامام يرين بحب نورم كوري تبقى تنصر عبيون يارد فلما مجنكو أمو لما ينور بشي بين دكناني يالا منتو لدك الدك بي mara romb na ala qaryatin ci baytul maqdis doo ko firi ci ci ci maqdis te nag moiya bi muy ñëw di ko wax dafa daanu dafa màbb dafa mboxoñoo ala urusiya ca kaw taxiya maanaam mbaar xam nga daal ñaari façon daal am na mbaar moo xam ne bu daanoo pieds yi mën naa des boobu garaawul mais mbaar mi garaaw mooy mbaar moo xamante ni avant pieds yi man avant mbaar mi di daanu pieds yi ñu njëkk a kon mbaar mi buy daanu muy def day tasaaroo bi ñu ñëwee nag moom Ousseynou loolu la fekk ah yàlla ne ko ah kon yow xamoo xaala man yàlla am xanaa xamoo ma yàlla ku pànk la de yenn saa mu defante de day defante de moo tax defante baax na jullit day defante mais ci lu baax yuxyi man maay dundal man yàlla haadihi naka lii man allahu yàlla danaa ko def baada mawtiha ginnaaw bi ma la reyee ba pare dina nga xam ni léppay dëkk parce que bi Uzayru yàlla dafa defoon bi muy boobu daa amoon cinquante ans amoon ñaari doom benn doom bu góor bi am douze ans doom bi am douze ans ndax yéen a may benn bi douze la am keneen ki douze ans la am ku jigéen ki moo am douze ku góor ki am douze fa ba Ousseynou waxee loolu fa amaatoo mu rey ko allahu yàlla ñaata at la ko rey mi ata amin yàlla rey ko téeméeri at Xuseyru tëdd ci watu baytul maqdis ñu rey ko bi ñu ko reyee nag ñëpp nag xool ko macha allah su ma baasee mu dekkal ko imaam yaa ngi dégg de kon ku dugg téeméeri at. avant ngay génn àdduna amoon nga cinquante ans ñu rey la téeméeri at nga tëdd ko cent plus cinquante égale combien cent cinquante ans léegi Ousseynou am na cent cinquante ans yàlla yee ko ne ko jugal jugal jugal maa la reyoon dekkal naa la xaala wax na moom yàlla Ousseynou kam la mista ñaata at fi am sa nelaw yi nga fi nelaw te muy dee ñaata nga fi am xaala kuseynu wax ni la bistu am naa fi yowman bis waaw waaw cent ans la tëdd de dee mu laaj yàlla ya mu wax yàlla na mu wax yàlla yàlla na ko ñaataat nga fi am yàlla laaj ko useyru wax ni man benn bis laa fi def parce que bi muy dugg maytu maxdis boobu huit heures la woon huit heures ci suba sept heures et demi huit bi ko yàlla dekkalee dix huit heures et parce que lu tax moom bi muy ñëw fekk jant baa ngi yëkkatiku mais bi mu yeewoo daa ñëw fekk ba jant bi di di waaj mu ne yow man bis laa fi def mu mu ne sax déedéet aw wala déedéet baax na yow nit man sax genn wàll genn wàll laa fi def man def ma ci journée ndax sept heures laa fi ñëw. huit heures yàlla ko hee yow xamoo li ngay wax de xaala wax naa bal fi nekk man yàlla labis ta saxal naa ci yow mais ata amin cent ans muy téeméeri ko téeméeri at waaw téeméeri at kon man tëdd naa lu xew yàlla na ko kaay kaay kaay kaay kaay déglu bi ngay ñëw lan nga àndaloon mu ne ko ndox laa jore woon bi ngay ñëw loo yoroon mu ne ko firi laa yore woon bi ngay ñëw lan nga waroon mu ne ko mbaam fan suur xoolal foo xoolal ila taamika jëm ci ñam yi nga yore xool ko am na ñam yoo xamante ni mën naa def acte bu yàqu am na firi yoo xam ne mën naa def acte bu yàqu rawatina nag yàlla bu ko jëlee denc ko pour jàngal ko bind wa saraabika ndox mën naa am atta du yàqu ko taamika wa saraabika mu ne ko am ci ndox meeg lekk gi nag lam yatasanna soppeekuwul fii nag la ñu jàngi fiq mooy les trois qui composent l'eau incolore inodore essence am bu dee ci arab bi mooy lamnuhu aw taxmuhu aw raxixatu incolore c'est la couleur inodore c'est l'odorat et sensible c'est wala noonu la du sensation dara kon yàqul kon ndox mën naa bañ a yàqu am na firi bu yàqu nag yàlla eh yàqu Seydou kaay ñëwal wanzur xoolaatal pareeguma ci yow de ndax am na ah! ila ximaari kaa ila taxaami kaa wa sharaabi ñaar wa ximaari kaa ah, kon bu ko defee mbokk yi waxtu yi dab nañu te ñoo waaj a waaw incha allah bu subaa ximaari kar imaam doyloo imaam doyloo kon bu ko defee insha allahu taala yàlla na yàlla defal dégg ak topp jaay seydina Muhammad ñu jox leen rendez-vous insha allah suba ak jàmm ci beneen tafsir quran seen télé Prestige TV wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu